Ouzin nag moom laaj bi mu laaj benn bu jëkk bi. Mhm. Ouzin man damay am problème comme ñëpp. Mhm. damay jaaxle comme ñëpp damay am tiis comme ñëpp damay am feebar ko feebar comme ñëpp damay am bu ñàkk xaalis kom ñëpp mhm. yooyu dal ñëpp a may dal waaye boo xasee ba taxaw ci caméra bi yooyu yëpp waratul feeñ yow li la war mooy nga indi humour parce que ñi lay so ñi ñi seetaan am na ci ñoo xam ne dañoo feebar am na ñoo xam ne dañoo tiis bi nga am am na ñoo xam ne dañoo ñàkk amuñu dépasse. Mhm. am na ñoo xamante ni reeraguñu te yaa ngi toog di wax ak ñoom waaye ñooñu ñëpp nag dafa am nga melokaan goo xam ne moom ngay waxee ak ñoom ndax seen xel dal. Mhm. yow yaa leen mën a indiwaat. yow loolu mooy se métier. Mhm. ndaje mi problème ya mu am am nga ko mais du tee ah comme que yow yaa choisir nekk taskatu xibaar. yaa choisir nekk animateur. yow donc yaa choisir pour mën a bégal nit ñi. comme que yàlla dogal na nga war leen a mën a bégal bégal leen. yow loolu rek damay génn fii ci sama kër ba fi loo xamante ne ni léegi laa koy waxtaan ak sama kër. Hmm. sama waa njaboot. semaine passée maa ngi dem di liggéey te fekk na maa ngi am ko malaat hmm. mais kenn xam ko kenn yóbbu ko man maa dem def sama nit ñi ma di ree kaf bu ma génnee nag. Hmm. wéetoog samay problème ñi ma seqel ñu xam ko waaye du ma dem ci téléphone nag di wane ah, di triste loolu rafetul. ndaxte am na ñu taxaw di la seetaan. Mm-hmm. te ñooñ ci yow lan yaakaar pour seen xel dal. Mm-hmm. beneen bi ci des mooy naqari ci biir làmb. Mm-hmm. waaw mënoo nekk ci biir bi liggéeyukaay. ñi nekk ci seen entreprise sax dañ fay am ay problème seen digganteeg seen seen collègue de travail seen diggante patron ba. seen diggante keneen client ba wala nangam noon dong la mel ci làmb ji. mënoo cee def man def naa ci làmb ji tey ji vingt quatre ans. soixante quatre vingt dix sept lañ duggoon ci làmb ji. Hmm? 97 de mil du 24 ans. Mm-hmm. waaw 24 ans bu la neexee nga nekk ci mbir da nga ci am loola neex. da nga ci am loola naqari. loolu mënu cee jën ñàkk. Mm-hmm. mais de toute façon loolu yëpp da koy surmonter te xam ne ci parcours bi la bokk. Mm-hmm. loolu bu boo boo ca ci pàndaw la moom ngay toog nag xalaat ko ni ah nangam ak nangam dal na te noonu noonu jafe-jafe yooyu nga ci am. ngay rectifier li nekk ci sa kanam. am naa ci ay jafe yoo xam ne jàngal na ma àddina. Mhm. am naa ci yoo xam ne jàngal na ma nit. Mhm. am na ci yoo xam ne jàngal na ma làmb. Mhm. waaw milieu làmb mënul ñàkk parce que kii daa jógee Grand Yoff kii jógee Xaar Yàlla kii jógee Grand Médine kii jógee Grand Dakar. kii jógee Fouta. kii jógee Kolda Bignona ah. ma yokk ci kii jóge Fuuta kii jóge fu ne. ngeen ànd yéen ngeen jaan ngeen daje ci bërëb. bokk leen xalaat. il faut yenn saa yi ngeen réeroo yenn saa yi généraux Bantamba. ah muy Papa Thion way ko. Ah. mu nekk loo xamante ni symbole la ci Bantamba bu ñu nee loolu moo njëkk mhm. daw. Mhm. naka ngeen dundee loolu ak moom nga xamante ni dëdd na àdduna. waaw woyu Thione Seck ci Bantamba ni koy dundee mooy sant yàlla rek. Mhm. sant yàlla lañ koy dundee ndaxte Thione ba koy def xol la ko defee. ba koy dégg xam nga ko ah. dafa mu ne ci biir dina newoon naa la dinaa la wayal bantamba mm-hmm. waaw noonu rek la demee noonu la ma waxoon dañ doon waxtaan rek maam mm-hmm. lu ma ko doon woo mu ne ma loolu du ma ko def li may def mooy dinaa la woyal bantamba ndaxte gis naa ni ah, da nga mel ni ku demoon université ñëw créé benn émission boo xam ne Sénégal ku añ ku reerati ba pare <laughs> mardi toog sa télé nit di xool mm-hmm. waaw mu ne ma loolu loolu loolu loolu loolu jar na woy parce que du ñëpp ko mën loolu lépp yàlla la mhm. yàlla mooy def noonu doomu aadama fexe ba bul ci gis sa bopp rek mhm. fexe ba xam ne nag lii suñu boroom a ko dogal mhm. ah boo ko defee boo ci gisu sa bopp di dem modestement rek yàlla dina la ci gën a taxaw mbaxane li tax mu nekk ci bopp bi xam nga lan la oyof bu bu diisoon léegi nga sànni ko daa ah oyof donc bu bu la tegoon saaku saaku kii bii ni la mooy mbaxane mi dee sol kenn du sol mbaxana ah daa oyof dong moo tax ñu teg ko ci ko xam nga ni kii sonalul kenn ah loolu dong la dañu oyof rek te sant yàlla.